situation bi li waral tey ñu woote fii mooy dafa am loo xam daf ñu jaaxal ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk fii cité Diamalaye dafa am benn acharnement boo xam ni la seen aslem particulièrement Ibrahima Diop daf ko mëne contre ñi nga xam ni des honnêtes d'honnêtes citoyens ñoo xam dañu dañu sacrifié wu ay jigéen góor pour teral seen njaboot pour fu ñu leen dugal la seen aslem di yabal ay vigiles fii ñuy intimider ñi nga xam ne ñoo fi dëkk di intimider seen suñu njaboot. di leen xoqatal waaw di def ay jëf yoo xam ni bon daf ñuy tee sax nelaw ça nous hante le sommeil. bu ñëwee dañuy dem ba parfois sax pour nga tabax sax il faut nga joxe dara pour mën a pour pour pour mën a tabax. si forme de condition si site boo xam ni ñun xam na ni tey bu ko seen aslam moomoon tey ñun ñëwuñ fee ñun ñëwuñ fee taxaw mais li ci gën a yéeme mooy dama defe ñun nous sommes dans un état de droit c'est ñu pensons que la DSCOS ñu nous n'avons rien contre la descos mais dañu yaakaar ne descos bu ñëwee fii bu problème amé dafa war a ñëw féete tëdd njaaxaanaay mais maintenant bu démé ba maintenant wa descos ñoy taxaw ni HLM mom mom mom fi ñun lool daf ñuy def daf loolu daf ñuy day leñ suñu xel. waaw dem leen ngeen fay dem leen ngeen fay HLM. waaw melni mom mom moom koku kooku domaine am la parce que ñun amuñu benn problème parce que s'il y a contentieux bañu ñu ñom ñoo fi régler situation bi ku wara tabax tabax ku waru la tabax tabax bu war arrêt waré amé ñun ñëpp ñu taxaw mais bu demee ba maintenant avec le commandant Ndoye la DSCOS se permet ñëw taxaw fii ni Aslem moom moom fii loolu vraiment loolu dafay dafay dafa dafay tee suñu xel et en li ci gën a grave mooy dem ba taxaw naan dem leen ngeen versé ji ngeen versé Aslem ay kër yoo xam ñun ñoo ko jënd ñu dem ci ay comment dire bu doon loo xam danoo dem ci tribunal dem fa demati fa tribunal may may ndam la famille soirée mu am titre foncier boo xam ne 15 75 30 hein benen bo xamni xam ne xaw ma koy wax ci olof mais muy pouvoir non euh, cassation suite à un appel de de la de la San HLM donc ñun affaire bi fi mu toll nii moom na xamni ni lu mu ko jaral dinañu ko jaral parce que ñun taral suñu njaboot duggal fi suñuy doom moo nu tax a ñu sacrifié wu ñi def ay prêt ñi jaay sen alal ñi sacrifié pour rek ut fu duggal suñu njaboot am fa ak inquiétude te fa ak dal maintenant mom lu mu ko jaral dinañu ko jaral bañ ñu ci dara légui nak nous ferons appel au président de la république ak kilifa yi nga xamni ño nekk ci Sénégal ñu xamni fi situation bi l'heure est grave lepp lo xamni ne mën nañ ko jog pour ñu délo sen HLM famu famu famu fa parce que moom manké na rôle parce que ñun dañu yaakaaroon la sen HLM nit day na ci jafé jafé am problème keur mu ñew duggal le foo deuk mais bu démé ba la sen HLM fi mu toll nii mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi nasaxal euh, Sénégalais di len di nungu sen alal di di di leen di di këf seen alal loolu vraiment il est temps que ci loolu mu loolu donc ñu ngi nii debout comme un seul homme bañu ci dara. effectivement loolu euh, ñu ko sekk ak wa keur dago ak Silma et Mbourkar parce que réalité bi am fii mooy suuf si suufu séeréer la. mais HLM bi mu ñé dafa def forcing amna ño xam sen souf suuf bi ñu ko arraché ci ñom sax a au retour amuñu ci dara. amuñu ci dara donc il est temps que ñu def benn bloc so loolu dina am dinañ taxaw mom dal na xam ne Diop lu mu ko jaral ñun dinañu ko jaral. ñun soxna yi dëkk fi jaxlé nañu. sonn nañu ndax dañoo liggéey suñu xaalis jënd fii ay terrain te waa waa HLM sonal nañu directeur HLM bi léegi dafa ànd ak waa Dascos bu ñuy liggéey ñi arrêté suñu maçon yi di yóbbu matériel yi am na fondation yoo xam te ne commencé nañ ko fi sax ñu toj ko fi ah, jigéen ñi fi nekk ñëpp am nañu fi am terrain ñëpp yoo xam te ne ñun ñoo ko ñaqal suñu bopp jënd ko fi nekk ci ay location bëgg fee dëkk kii daane lañ fondation ñaari yoon du xeex góor ñi kese góor ñi dañ fee am kër jigéen ñi am fi kër te ci location lañ nekk bëgg nañoo dëkk suñuy kër te sonn nañu HLM euh, directeur HLM bi Ibrahima Diop ànd ak waa Dascos ñëw di ñu utiliser di nax te fii ay intellectuel ñoo fi nekk ay dof dëkkuñu fi ñun daal sonn nañ sonn goo xamante ne ñu ngi woo président de la république ñu ngi woo kilifa diine yi ñu ngi woo ñëpp ku ñu mën a dimbali fii ndax ñoom liñ fi bëgg duñ ko nangu ah xanaa yëgagu ko ne bu ko yëgoon dañuy dimbali si ay jigéen fi nekk ay goro fi nekk janci mbeng kon ñu ngi ko ci woo mu ñoo dimbali si ñu ndax ñun sonn nañu sonn nañu dara gënta metti moom salal te mënoo koo jariñoo te ñuy jigéen dara waralu ko nag lu dul jóob mi ànd ak seebendoo yi ñëw di xool ñuy des ko sax nga fiy gis te yuñ tegul fenn maçon bu commencé jaxase ba war a liggéey ñun nag ñu ñëw jàpp maçon bi nangu matériel ba la nga seulement ba nga jaxase woon nga perte ko ñun daal loolu la dund fii kuñ ci dimbali ñu jël ñu fiy dund lu metti yàlla mii ñu tiim xam na ne man daaneel nan fi ñaari yoon sans fondation bërki démb ci samedi bi lañ fi mujj dañoo yóbbu sama bagage yi fekk mu gazé ba pare noonu lañ perte ciment boobu ak suuf loolu nag metti na ci kuy góor góorlu mm-hmm. di xëye ka wàcc di taqale say juróom ak say fukki dërëm ba am yaakaar fi nga jënd ñu taxaw la tem ñemewoo tabax guddi ñemewoo tabax ba bëccëg ñemewoo tabax sam samedi ñemewoo tabax dimaas te muy sunu moomeel ñu jënd ko ci ay kayit yu leer ñuy woote nag képp koo xam ne yaa ngi dégg sunu kàddu te man ñu cee dimbali ñun jigéen ñi jàmm Diamalaye ñu ngi woote ndimbal ñu dimbali ñu ngir yàlla ndax lu bi métti na te jamono neexul nga bëgg dund ak sa njaboot ci luyas rek lu ba am sa suuf mëno fexé ba tabax ko ñi ngi ci wo ñepp di ci wo président de la république di ci wo soxnam mariam fay Sall mu gessu jigen ñi. ñi non ñi ngi wo ñepp ñi ngi wo ñepp fi daal ku fi kilifa rek ñoo ngi lay wo ku dégg tay daal sunu kàddu te yëg ci ñi ngi la ci ñaan ndimbal ndax son nañ son nañ ci sunu alal ji ni yàq te wax dëgg yàlla ji mënuñu wax ñu def ba am ko. jënd sa kër nag war a tabax mënoo fexe ba tabax dara gën koo metti te dëkk ci dëkk bi